président Bassirou Diomaye Fay ñëw fii ci Tiwaawan ànd ak soxnaam Absa Faye ngir rek indi ziaram egge ko kii nga xam ni moom moo di xalif général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour gannaaw ba ñuy waajal lii nga xamante ni mooy bu tedd bi di gàmmu gi bi mu yegsee gannaaw ba ko tatagalee dalal ko moom njiitu réew jël na kàddu yi egge kilifa gi di sant yàlla nag gannaaw bi ñu yàlla mayee ñu fekkee bés bi te tal ko ba mën a amee jeetaay bii nga xam ni du formalité pour ñun farata gu mat sëkk la boo xamante ne saa ñu fi yàlla mayee ñu fekki ko ñu ngi xool ci bala ñuy egsi ci ñu ñuy yilif ndax seen taxawaay mat na ba bés bi ñu dégmal nga xam ne bés gënu ka rëy gënu kaa mag bu eggee bu lépp sottiwul tamit lu ci tuuti rek la ñuy wax ne war nañ ko gën a ñongal waaye du lu ñuy fàtte kon ay fanangi nii ministère yi nga xamante ne ñoom ñoo waroon dugal seen loxo ci li tax bés bi fii ci Tiwaawoon doon bés gu mucc ayib daanaka def nañ seen kemtalaay kattan ànd ceeg nag euh, pas-pas gu mat sëkk ku ci ne ci ñoom def nga rapport ni li ñu ma santoon fii laa ci yem ci beneen wàll nag muy rafetlu rekk taxawaayu sëriñ bi ci jumaa ju mag bi nga xamante ni Tiwaawoon ndar na ko daloo ba tax sax mu am ndogal bu rëy bu jëm ci yorinu ndox mi euh, ci bërëb bi. li ñu retenir mooy puisque forage baa ngi ci biir jumaa ji te jumaa ju toll noonu waxuma la rek waaye bu fa nit ñi dajee di jàpp di raxas jumaa ji parce que dafa laaj entretien bu ñu bàyyee mu am gestion commune kon ay factures yu bëri rek lay andi ndax nit ñi buñ dee jàpp puisque dañuy selal ñu mel ni nu li dañ jàpp lu ndox mi di gën a bari rek njàpp yi di gën a jub kon mën na nekk ay factures yu kawe. ñu ne nag li ñu jël comme décision mooy ci RSE SONES bi ñu daal di jël forage bi jébal ko euh, xalif bi mu doon moomeelu communauté bi bu ko defee ngeen gérer ko ni ngeen ko bëggee te mu nara a correspondre ak li nga xamante ne noonu ngeen war a administrer jumaa ji de façon général di ñaan tamit ci ni leen jaam yi di dégloo taalibe yi te déggal leen ñu gën a waxtaan ak ndaw ñi te yaakaaruñu leen ci delloowaat seen xel parce que xaru gi tamit du lu diine nangu te loolu lay nurool nag bu ñu gisee nombre de victimes nu ñu mel ak seen persistance bi ñu cay demee te gis liy xew dara xëyul sotti waaye yaakaar naa ne dina baax ñi nga xamante ne déggal nañu leen euh, ñu gën a waxtaanat ak ñoom te loolu moo tax lépp luy renforcer kilifa diine yi rek dañ ciy taxaw parce que dañuy soxla ci seen crédibilité pour suñuy message mën a jàll dem ci citoyen yi yaakaaruñu leen ci torop torop torop torop muy nag lu am solo kilifa gi xalif général di tidiane serigne babacar si mansour gërëm sant président basiru jomaay fay ñaanal ko ci kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko président daal yal na la yàlla jàppale ne ku yàlla jàppale nga dem yal na la yàlla jàppale yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi amin yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi amin ne këru diine nit ñi déglu nañu leen ñi ngi wax ak ñoom ñi ngi wax ak nit ñëpp ne da nga nit ñee dëgër bopp loo wax jox leen ñu yëkkati teg fale waaye bu mu taxit nga noppi ndax waru gar la nit ki waxal nit ñi ànd ak ñoom ci kàddu ak ci xalaat ñi ngi lay sant bu baax ne mi ngi ñaan yàlla jataay bi yàlla bu mu nekk sunu mujj daje amin ne gàmm gi ñu jëmit incha allahu te ñu nekk ci yàlla bu mu nekk sunu mujj gàmmu amin ne tànk yi nga yëkkati yàgg ñi nga àndal yàlla ci yàlla def tànk mu nekk tànku barke amin yal na yàlla suturaal la jàppale la nga am ndam atteindre sa objectif yëpp amin yàlla na ko yàlla def gannaaw nag euh, balaa mu doon euh, jóge fii ci Tiwaawan njiitu réew mi egg na ci rawdu euh, Seydi Hadji Malick si naka noonu bu Serigne Babacar si foofu nag tisbaar eh, fekk ko fa mu andak delegation bi eh, julli ñaan ngir rek eh, bés bi bu am solo waaye tamit ngir rek bés bi ñu jublu di gàmmu gi ñu def ko ci anam yu mucc ayib waaye tamit Sénégal nekk ci jàmm waaye tamit ak Galak diaspora bi asalaamaaleykum Serigne Omar Fall waaw Serigne Omar Fall di ku yàlla baaxal mu géeju lool ci wàllu asraar ak ñaan moo xam kurus ba ci wàllu bind te joxe ay sangat yu yéeme lool moom Serigne Omar Fall yéen bëgg sixaara jokkool ak Serigne Omar Fall yéen bëgg cangat ci wàllu ubbeeku ak muslaay ba ci protection bayri ak cat ba ci yéeme am faru rab jigéen bu bëgg borom kër mu jafe ko lool ba ci góor gi bëgg sox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 nit bu la jaaxal yéen bëgg ku la duggal xalwa gàllaaj ndomo ba ci ci Serigne Omar Fall lam ci yow doo ko gis fenn ma bamtu ko numéro mooy 78 566 35 79 Serigne Omar Fall seen njàqare jeex